al ibadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéey liggéeyal lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki daara ji maa ngi leen di nuyu di leen ziar diko ko teg ci loxol sëriñ xaatim ak sëriñ na yàlla nangu ñaan yépp te yàlla na ko yàlla boole mbokk mi laaj nee na ku doon jiit ay nit ci mbooloo moo xam ne du jàkk ndax moom mu yéene jiit leen da cee doon sart ak bu leen jiitee te yéenewut ndax loolu dana tax julli a yàqu wala déet waaw yéene jiite de borom xam-xam dañu wax ne ilimaan yéene jiite warut ko lu dul ci julli yi nga xam ne mbooloo sart la julik jullik ajjuma bu ñuy boole timis ak gee taw ak jullik ragal buñ doon xare bay jëf jullik ragal nga xam ne dañuy xaaj mboolam ñaari xaaj ak istixlaaf eh, mooy bu ñu ilimaan doon jiite bi yàgg moom ngànt xëcc kenn ca mbooloo ma kooka war naa yéene jiite la des sa julli yooyu barab la ñu wax ilimaan yéene jiite mbaa julli du baax amma julli mbooloo goo xam ne du ci mbooloo du ci sar yéene jiite warut ilimaan nit ki mën naa kabaru julli moom kenn ba mu yàgg nit ñëw kabar ci ginnaawam roy ci moom yéene roy moom bu ko defee dana am gëneel mbooloo waaye foofu nag dañu bëgg ne ilimaan ji saa bu yëgee ne am na kuy roy ci moom ne yéene jiite ngir mu am gëneelu mbooloo bu ko yéene wutoon moom julli ga baax na waaye nag lu mbooloo dul am kon jul jiite mbooloo manis na ko def ci dul yéene jiite waaye nag loolu day tax doo am gëneelul mbooloo ma waaye julli gam dana baax incha allahu taala taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dañ ko tëj ci kaso nee na fi mu nekk nag laabut te duñ ko may mu génn julli ji lu muy def waaw bu fekkee ne moom de jàpp na barab ba mu nekk bu laabut te amul feneen foofu lay jullee ndax li ñuy wax taxaaratul xabas charte la ci julli mooy nga laab sa yére sa yaram ak barab bi ngay jullee bu fekkee ne man nga ko te fàttiwoo waaye bu fekkee daa ne foo xam ne moom mënu ko nag waaye mën naa jàpp moom day jàpp julli kon julli gi muy julli ci barab bu sobe waaw loolu la man ndax euh, balaa julli ga yàqu man ko koo dindi te dindiwu ko man a jullee fu laab ba mu bañ faa dem wala julli ga yàqu waaye ginnaaw mënu ko moom su boobaa nag loolu dañ ko koy tëjjal amaa nag bu fekkoon daa man dañ koo tëj foo xam ne mayuñ ko mu jàpp moom moom la jàpput mayuñ ko mu jàpp fenn su boobaa nag lii lëng ci masab Maalik mooy julli da koy wàcc bu fekkee labal na waxtu wa dañoo tëj maanaam waxtu ba waxtu wa jeex tàmbali ba muxtaar nag dara lépp jeex ñu tëj ko foo xam ni nii nanguwuñ ko ubbi fekk moom biñ koy tëj jàpput amu fu mën a jàppe amu fenn fu mën a tiime it boobaa moom ko wàcc mooy koo xam ne amul fu mu laabe moo xam du ndox du tiim du ndox du du suuf mu fu mu laabe loolu ñeenti wax moo ci am ci ngirum Malik mi waaye nag la cay wax imam Malik mooy kooku julli wàcc na ko ndax dañuy wax ne mën a laab charte la ci waru julli kon koo xam ne mënta laab julli ga da koy wàcc kon waaye bu fekkee nag moom mën naa jàpp moom suba bu amut barab bu laab bu mu jullee it barab bu mu baax na wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa bokkoon ci ab natt ñuy def weeru ulee ñu nat ñeenti junni ba def ko lu mat juróomi weer moom nag mu faatu te bi faatu fekk na mu teggi woon nee na mbokk yene bokk koo fayal waaye niñ ko bëgg a fayale mooy weeru wu day ñu tegal ko ñeenti junni yam daan teg muy laaj ba xam ndax noonu na war a demee wala déet waaw nit di bu faatoo bokk na ci li war ay bokkam moo ñu lijjanti ginnaawam miiras ko waaye balañ ko miiras nag bokk na ci lañ war a génne ci alal gi fay ko ay borom kon li mu bàyyi ci alal lañ war a génne eh, bor yi mu fekkee bàyyi na fi ci alal lu mën a fay bor yi dañ ko nañ ko fay fekkee bàyyi na fi ci alal lu mën a fay bor ñu fay ko doonte dañuy këram ndax bala ñoo sañ rek day fekk ñu fay bor yëpp su nag suñ génnee xaalis ba jox ko ña tegaloon ci saasa mu wàcc ko loolu mooy li gën a noppale moo gën di ko denc yaru ree nga di ko nga génne dara wala boog ñu génnee ko jox ko keneen ku yor nat ba saa bu weer dee ko war teg mu tegal ko waaye la ginnaaw moom faatu daal àq ji ko doon topp nuñ ko mën a gën a gaaw a teggee moo gën ci moom nuñ ko mën a gën a gaaw a teggee kon nag nañ xayma alalam génn ca bor ya jox ko ñam ko amee la moom mu kenn colo loola loolu mooy li gën wallahu taala alam bokk mi laaj nee na buñ doon noddu nit ñëw di la nuyu ndax mën ngaa saafoonteeg moom wala nga war a bàyyi buñ noddu gi bu noddu gi daanu waaw noddu de buñ koy def li gën mooy nit ki déglu li noddukat bi wax mu di ko wax bu noppee ñaan ñaan gi ñu war a ñaan ñaan giñ ci giñ bëgg ñu ñaan ko muy def mu dal ko def waaye nag nuyoo moom sunna la fay nuyoo farata la bu ko ni nuyoo na ko fay xëy na jàmmante yàgg ya ca des nag la ko moo ko jërut maanaam gi daanu moom waaye bu nekk asalaamaaleykum wax ko waaleykum salaam ndax loolu ci ndigal li la kon bu ñuy tere wax ci nodd it wax ju amul njariñ wala wax ju baaxut wala wax joo xam ne gënut loolu la ñuy wax wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na dafa gis ku caricature Macron daf ko ab kalbu nee na mu laaj am ku ne ko dagan na ndax laa yuhibbullahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulim comme dañoo tooñ sañ ñu fayu mu laaj ba xam loolu noonu la demee wala déet waaw yëfar boo xam ne day dafa noonu ñooñu lislaam muxaarib la ñu ko mën a jàppe kooku amul ci war ma ngàññi ko daga na ci lislaam ab julit wala koo xam ne du jullit waaye séq naag jullit ñi worma séq ak ñoom këll gu muy sàmm kooku lañuy ñuy tere koo xas la ñuy tere koo ŋàññi kon ñoom ŋàññi leen seen ber seenu der amul worma waaye nag xëy na mën naa moytu rek di ànd ak ñoom ci doxin wu mel noonu ndax ñoom loola ci seen aada la bokk seen culture la bokk boo leen ko defee naare doon naqar yi dañuy rey jàll yow nag bu ko defee sa kilifa mu mer la jaral la lu ne moo tax jëflante ñoom ci anam googu doonu lu gën waaye ku mel ni Macron ak moom la boo xam ne mu xaarib lañ ko jàppe kooku ab deram amutul benn worma ŋàññi ko dagal na ci lislaam wallahu taala alam mbokk mi laaj compagnie bi ñuy wax Qnet nga xam ne day def yaxantu ci internet bi ci anam goo xam ne bu xaw a jaxasoo la ndax noonu muy liggéeyalu dagan la loolu de lu siiw la ci àdduna boroom xam-xam lislaam bi liñ ci wax mooy ne dafa xaraam ndax ay lënt yu baree ngi ci baaxut ci koom-koomu àdduna it te yu bari yu leerut daca am ci tënk daal mooy e, jëflanteeg ñoom anam googu ñuy jëflante dafa xaram ci lislaam loolu la ci borom xam-xam lislaam yi wax wallahu taala alam mbokk mi laaj nee ndax ab jullit sañ naa leblante koo xam ne du jullit ñëw leb ko loo xam ne da koy jëndee yu ñuy jëfandikoo ñoom di ci mel ni kurus li ñuy jëfandikoo kurus ñun lu mel noonu lañ koy jëfandikoo muy laaj ba xam loolu dagan na waaw leblante ñu dul jullite dara nekku ci ndax suñu borom fi nga xam ne yàlla terewu leen ñi nga xam ne du ñu julli waaye yëkkati wuñ daan nay jëmee ci yéen ngeen baax baax baax ci ñoom ngeen jëmee ci ñoom aw yóbbu loolu islam terewu ko may si naa leblante ñoom allahumma nga leen di lebal ci loo xam ne dañ cey dëgëral seen diine maanaam daal bu doon leb loo xam ne da koy dundee di ko soxla ci soxla àdduna en tant que nit loolu nga lebal ko ba nga fay la dara ñëpp ci aw yiw lu sax nag amma bu fekkee loo xam ne da koy dëgërale diine moom ñooñu dañuy tere ku leen jàppule ci seen diine ci ndax neen la te borom bi daa tere woon dimbalante ci bàkkaar ak i neen ak bàkkaar ak tooñ kon ñoom bu dee daal leer na ko ne lam koy jëfandikoo ci luy dëgëral seen diine loolu bu ko ci dimbale bu dee nag lu muy dunde la wala njabootam di ko dundee aajo yi àdduna la cay faj jëflante ak moom aw la wallahu taala alam mbokk mi laaj lan moo tàggalee an nafsu ak hawa waaw euh, hawa de ci nafsu lay jóge moo tax alxuraan di wax amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa mu fexe ba bakkanam moom bañ a topp xam ndax bakkan dana nekk nafsul mutmainna su boobaa banneexam xam bu baax lay doon ndigal lay topp da koy jëmee ci lu baax bu nekkee amaaratun bi suu nag moo koy jëmee ci lu bon kon hawa ci bakkan lay ci bakkan ci nafsu lay jógee ñu nafsu mel nag noonu la hawa bay mel wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ban jaaro ak aqiq may góor mu takku ko ak poids bi nu muy war a toll ak ñaata jaaro lañ may ngir mu takk ko jaaro biñ may góor mooy jaarab xaalis benn jaarab xaalis boo xam ne du ëpp juróom benn gramme jaaro bi nag day ànd ak lu ñu tuddee fas mooy loolu ñu def per boobu ñu def yonent bi amoon na ab jaaro boo xam ne fas ba peme woon muy aqiq xëy na loolu tax nit ñi fonk ko Eh, am na ay xadis yu bari nag sax yi wax ci ngëneeli aqiq moom waaye nag boroom xam-xam yi xadis yi deeñu xadis yooyu moom wéruñu waaye daal sax na ne moom yonent bi alayhi salaam moon na jaaro boo xam ne aqiq moo nekkoon ci kaw moo doon per ba waaye li boroom xam-xam fiq wax mooy jaaro boo xam ne xaalis lay doon benn lay doon te bu mu ëpp juróom benn gram loolu lañ may julit bu góor mu takku ko wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax di ñaan naan yàlla na la diw defal nangam sañ nañ koo wax waaw ab jullit de li war a wax mooy yàlla lañuy ñaan ndax ñaan jaamu la nit nag sañ naa ñaan yàlla tawassul ci lu baax wala ku baax sañ naa ñaan yàlla ci barke ci warumay diw waaye ñaan moom yàlla sunu borom subhanahu wa taala lañ ko war a jëme wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na kuy bu ñuy wàcce kaamil ginnaaw fajar bu ñu jullee soo ba noppi nee na ndax waxtu woowu bu nit ki jàng ak see ci sujjootub alxuraan nu muy def waaw sujjootub alxuraan dafa am barab yu ñu koy tere bokk na ca euh, buñ ñu jullee suba ba mu leer bu ñuy door a julli suba ci lëndëm ba manis naa foofu sujjoot naka noonu bu ñuy door a julli takkusaan manis naa sujjoot waaye bu ñu demee ba jant bay lang naka noonu bu leeree ci suba gi dañuy tere sujjoot ba jant bi fenk ba génn. boobaa nag jànkatu alxuraan bi su agsee ci aaya boo xam ne sujjóot da caa war te foofu dañuy tere su sujjóot day jàng jàll am na sax ci waroom xam-xam yi wax naan na tëb aaya ba wala na tëb baat ba waaye li gën a lëng mooy dañ koo su sujjóot waaye foofu dañ koo fa kon amul su sujjóot foofu waaye am na ndigalul jàng alxuraan kon na jàng alxuraan te bañ a sujjóot ndax foofu euh, xëttu ndigal ndigal li mooy bañu a sujjóot kon def na ko wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku dugg ci jàkka ajjuma yëkkati ay loxoom di waaj a kabar far gis ilimaan di yéeg ci minbar bi nu muy def day bàyyi lam doon waaj def te toog ndax bu ilimaan xasee dugg ci jàkka rek ci masab Malik ajuma dañuy tere nafila ku duggati ndigal li muy toog wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku jaar ci gaal yi dem Europe ba àgg nga xam ne lu tere la waaye dem na ba àgg moom nee na dem di liggéey ndax la muy liggéeyee lam cey jële dana dagan wala déet waaw yi ñuy demee ci gaal yi nii di dëgganut ndax dugal sa teg sa bopp loo xam ne mën la caa fekk la boo mën ngaa des yoon wi waaye mën nga àgg sax nag ñu jàpp toroxal la te loolu dañ ab jullit woote dugal boo xam ci lu mel nag su defoon ba àgg di liggéey nag la muy liggéey la ñu xool bu fekkee ne liggéey ba jaar na yoon lam ñuy jël danga lay doon ndax yoon wi dox gim dox ci anam gu daganut ak dem liggéey lu dagan bokkuñ nit ki mën naa euh, jël yëfi jàmbur dem tukki ji fa posu jàmbur tukki ji tukki boobu day waaye boo xasee àgg fa mu jëm nag kon bàkkaarub jëlee fi jàmbur am na ko waaye boo àggee di liggéey nag di liggéey ba mu jaar ko ci anam gu tegu ci yoon lam ci am day day dagan su boobaa kon du rek su fekkee ne ni mu duggee yoon yu jaar bàgg baaxut kon bu fa nekkee lu mu fa am du baax déedéet la mu fa am moom dañuy xool nu ko amee fekkee da daa jaar ci lu leer di liggéey liggéey bu tegu ci yoon luñ ko fay de dagan su boobaa loolu lu dagan lay doon wallahu taala alam mbokk mi laa nee na liqaam ci julli jigéen bu ko deful ndax julli ga dana wér waaw liqaam ci julli day na la ci góor waaye dañ koo sopp ci jigéen de dee jigéen sopp nañ mu liqaam waaye mu yàllu ko itam ñaar yëpp dañ ko sopp kon bu ko defutoo di tey julli gi dana baax incha allah waaye nag sopp nañ mu def ko wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku doon jaay oto wala kër wala yu mel noonu ne la ci misaal ñaari million laa ci laa koy jaaye laa bëgg na jaayal ma ko yow na nga dem jaaye ko lu ëpp ñaari million ndax loolu dagan na ak pourcentage bi ñuy wax nga xam dañ naa lii boo ko jaayee yaa moom c'est cinq pour cent waaw ñu jaay loola dara day ci ñaari million nga dem jaayee ko lu ëpp ñaari million dagan na bu fekkee da ngaa ñëw jox ko borom lépp ndax moom alalam doon ko jaay xëy na daa jàppoon ne ñaari million bu ko baax na waaye bu amee lu ko jël kon boo ko jaayee ñaari million genn wàll da nga war war a ñëw jox ko lépp su ko defee nag la ngeen waxaale woon ne ko boo ko jaayalee moom la lay fay nga fay ko foofu day day day war yow mi jaaylu nga ne boo ko jaayee mu fay la nangam wax ko lim bu xam. moo tax pourcentage bi it bu dee luñ xam dagan na bu fekkee da nga ne ko ñaar million nga ko jaay ñaari million yi nag yaa moom 5 pour cent yi loolu leer na xam nañ ñaar waaye boo ne ko jaayal rek loo ko jaayee baax na waaye loo ko mën a jaayee 5 pour cent ngay moom loolu du dagan ci mazhabu Malik ndax xamuñ aji jaay ji ñaata lay am ci jaay bi daganut it ci mazhabu nga ne ko ñaari million laa bëgg nga jaayee ko laa ci bëgg lu mu tegal maa ñoo koy bokk séddoo looy dagan kon ngay ki ngay jaayloo moom ko wax li nga koy jox ci njaay mi liggéey ba muy liggéey lim ci am muy ak payam da ko war a ko war a xam moom bala bala ngeen bu ngeen tàmbali saa bu doonee loo xam ne gu ñaat lay am rek loolu ci masambaaj dañ koy tere wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na luy atteeb jullee néew ginnaaw takkusaan jullee néew ginnaaw takkusaan ci mazhabu ila maalik dagat na ba lis firaar di am li ñuy wax jant bu lang bu nee ba naaj wi wéexatul foofu moom dañuy sib jullee fu néew dañuy sib denc fa ab néew bu nee ba jamono jant bi sonal moom jullee néew ak suul ko fa dafa araam lu dul ngàntaam nga xam ne buñ ko defut néew bu yàqu kon du du buñ sëlmalee takkusaan rek dañuy tere jullee néew déedéet ci ma bu Maalik tere wuñ jullee néew ginnaaw takkusaan waaye buñ demee ba euh, waxtu gel nga xam ne naaj wi wéexatul jant bi waaje soo foofu lañuy ñuy ku jullee néew bu xasi ak foofu moom dañoo war a bàyyi ba julli timis ba noppi ndax foofu dañuy tere dañuy sib jullee gi dañoo sib roppi ak néew moo tax li gën moom di ko teel a jullee ginnaaw takkusaan bu ko defee mën ko rob ci waxtu woo xam ne jant bi la nga gut waaye bu takkusaan xasee suufee ba naaj wi ñàkk a weexati nga xam ne jëm ci lu ñu ak gel su boobaa sib nañ jullee néew sib nañ ci néew ba jant bi soof tàmbalee soof bu tàmbalee soof nag day jullee néew ak suul néew de arab ba muy sooba ba ñu julli timis sooba bi ma mat ñu sibaat ko way julli timis ba noppi waaye ginnaaw tàkkusaan buñ koy dooru sëlmal moo amut ci masabu Malik amut sax ci menn ngir moo xam ne dañuy tere jullee néew loolu amul fen amul benn ngir ci borom xam ko ko wax wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax lekk jinax ak kaña ak golo luy seen atte ci lislaam jinax ak euh, kaña dagan nañ lekk leen bu ñu leen rendee golo nag dañ ko sit wallahu taala alam